premier combat de la soirée mon ngay am loolu ci premier combat de la soirée Zende bu ndaw moom ngay Zende Malika Zende Malika mon moo Boy premier combat de la soirée aujourd'hui aujourd'hui dimanche aujourd'hui samedi autant pour moi samedi 25 novembre 2023 ñu ngi l'arène nationale le promoteur le promoteur Ablaye Diakhaté à la tête de la structure Diender production organisée Zendabou Malika face à Boy Ndiaye Ndaw face à Boy Ndiaye roofal premier combat de la soirée Ndaw mu ngi jóge Malika Malika Mbaba seen doom a ngi noonu Zendabou Ndaw waaye Boy Ndiaye mi ngi jóge Pikine ndeysaan waaw waaw Icotaf Texaco seen doom a ngi noonu Boy Ndiaye waaw waaw pension de l'équipe Pikine Mbolo aca Boy Ndiaye jeune de mu ndaw mi ngi jógee Mbel moo ko toogal 16 eh Boy Ndiaye yee Boy Ndiaye waaw waaw jeune de face Zende face à Boy Premier combat de la soirée. Premier combat de la soirée. Aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, nous la nationale, le promoteur. Ablaï djahati à la tête de la structure. j'ai la production organisée. Waouh, waouh. Premier combat de la soirée. Zende. Zende Moudou face à Boy Ndiaye. Boy de Bobby. Boy Ndiaye, mon ginnaaw booboy premier combat de la soirée et eh, attention jeune de face à Boy Ndiaye Boy Ndiaye face à jeune bu ndaw attention eh dooral ma door dooral ma door dooral ma door door mu daanu xaj na ca jeune bu ndaw face à Boy Ndiaye premier combat de la soirée ndeysaan Modou Anta bu Thiès Alioune Seye numéro 2 Baye Fall bi ñoo war a bëre grand bii nag mooy premier combat de la soirée Zéne 2 face à Boy Ndiaye Boy door Boy Ndiaye face à Zéne 2 Zéne journée bu ndaw face à Boy Ndiaye journée bu ndaw face à Boy Ndiaye journée Zende ndaw face à Boy premier combat de la soirée mi ngi commencé yàgg de mbaa duñu mi-temps mbaa duñu dem mi-temps ndaw face à Boy attention faqen na Arrêtez le combat bi monsieur l'arbitre arrêtez le combat Arrêtez le combat అవ్వెట్టిసినప్పుడు ఉండవు avertissement pour zone mu ndaw arbitre sifflé baat na génn na seen diggante Boy Ndiaye moom moo ñu woon ginnaaw noonu moo tent bopp bi zone mu ndaw moo jàkkaarloo attention zone attention Boy Ndiaye wow wow wow attention zone mu ndaw face à Boy Ndiaye zone mu ndaw face à Boy Ndiaye bàyyil tooñ bàyyil tooñ bàyyil tooñ bàyyil tooñ Jeune le Moundou face à Boy Niang Jeune le Moundou face à Boy Niang premier combat premier combat de la soirée comme nous ma leen ko waxee sama samedi le samedi 25 novembre 2023 Nous avons nationale le promoteur le promoteur a à la tête de la structure de Production organisée, Waouh waouh Premier combat de la soirée Waouh waouh waouh wow! c'est la mi-temps C'est la mi-temps C'est la mi-temps fin temps C'est la mi-temps C'est la mi-temps pas mi-temps Zalamundaou Waouh waouh waouh waouh waouh Deuxième mi-temps premier combat la soirée bëri nañ premier mi-temps ba mu jeex ñoo ngi ci deuxième mi-temps Boy Ndiaye moo noonu moo tënd bopp bi Zende bu ndaw moo jàkkaarloo bu Malika moo jàkkaarloo ñun waaw waaw Sendou Ndaw face à Boy Ndiaye de la soirée deuxième mi-temps monsieur l'arbitre Malick Ngom sifflé na génn seen diggante waaw roofoon ma door mu daanu xañ na ca Sendou face à Boy Ndiaye waaw waaw attention eh, lu muy waaj def noonu Sendou attention eh mi ngi door Sendou Ndaw Zender bu ndaw face à Boy Ndiaye Zender bu ndaw face à Boy Ndiaye Zender bu ndaw face à Boy Ndiaye Zender attention eh, eh, eh, eh Zenda Moundaou Boydiaï, premier combat de la soirée aujourd'hui. Samedi 25 novembre 2023, nous à l'arène nationale, le promoteur. Le promoteur, Ablaï Djaradi à la tête de la structure. J'ai la production organisée. Waouh, waouh, waouh, waouh. Eh, Zendaye, attention, Boydiaï, Zendaye Sanda daan na ko Sanda bu ndaw daan waaw Sanda bu Malika daan na ko Sanda bu ndaw daan na waaw waaw waaw waaw waaw waaw jël na jël leer na jël amul benn wérante Sanda bu Malika bëri na bëri bi daan na Boy Ndiaye jël leer jël amul benn wérante waaw waaw boobu premier combat de la première vainqueur la soirée mi ngi noonu jeune la bu na bëre bi daan na Boy Niang jël bu rëy waaw waaw waaw waaw yi mi ngi noonu comme ni ma leen ko waxee tey le samedi 25 novembre 2023 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur Ablaye Diakhaté à la tête de mu organisé jeune la bu ndaw daan na Boy Niang jël bu rëy jël bu